ak aussi tamit ñenn ñi nga xam ne ñooy saccagé di yàq ay biens publics. moom mi en personne il a pris la responsabilité d'assurer la sécurité et la paix dans cette zone muy zone Pikine Pikine euh, Texaco Pikine Texaco waaw euh, voilà voilà voilà voilà vous avez bien vu euh, kii nii ñu jagloonteel ñoo ngi koy laaj xalaatam ci mbir mi sëñ bi ñoo ngi lay jaajëfal. waaw waaw ñu ngi rafetlu seen taxawaay. vraiment di kontaan tamit si initiative bi ngeen def parce que lii yëpp bëgg Pikine baax la ko waaye boo gisee Moussa le maire Issakha Diop ak Jara ñoom ñëpp génn mobilisé wu xam nañ ne Pikine benn bopp la te kenn mënu ko xar ñaar te ñii ñëpp ñoo bokk pikin comme te kenn koo si yàqal sa bopp nga yàqal vraiment violence bi bëri na xam nga rayante bi bëri na te booy xool ñun ñoo si dee ñoo si demante dëj waaw actuellement man Pikine jàpp naa fi ay cardan waaw ay quatre yoo xamante ni vraiment jaru ak ay blessures yi métti te booy xool ñi ñëpp benn lañ comprendre nga lu ne mën nañ koo xeex euh, ak beneen domaine bu dul saccager quoi waaw bu dul violence parce que suñu alal la quoi lu ñu yàq tamit suñu alal la may ñaan jeunesse bi yëpp ñu delloo seen xel comprendre nga te xam ni violence mënul faj dara lépp waxtaan a ko mën a defar ñoo waaw ñoo ngi waaj euh, euh, te gis nañu sax ñi nga xam merci waaw mu ngoog xam am nga xam day feeñ parce que tamit nit ñi dañoo liggéeyul sax pour mën a am luñ jëndee xar. te jaaykati xar yi tamit amuñu. ñoom it sonn nañ te buñ sañoon jaay seen xar kon ñaari cause yu metti la comprendre nga yu nar a daje te il faut ñu bàyyi lenn pour lenn mën a am. comprendre te tabaski bi vraiment jege na xat na dëkk bi métti na am na ñoo xam ne bu ñu xëyee dañuy jaay pour mën a dund comprendre nga marché ambulant yi ñi nga xamante ni jigéen ñi na nga daan leen gis fajar ñiy xëy kenn xëyatul ah mu nekk loo xamante ni xeex boo xamante ni daal mënuñu jox dara lu dul pertement quoi pertement te ñu ngi jëm ci période tabaski xar yi mënatul ñëw comprendre nga ñu ma sañoon daal jeunesse bi yëpp ànd ak seen xel ñu jéem a arrêté lii xam nga lépp mën nañ ko def ci waxtaan quoi comprendre nga waaw Macky Sall moo fi président de la république moom na xool li gën si réew mi ak liy defar réew mu def ko jàmm am quoi vraiment ñu ñëpp benn lañ quoi on est ensemble waaw jaajëf. bon daanaka sama copain bi wax na lépp quoi ñun daal ñu ñaan jàmm am Sénégal jàmm ñu jik quoi affaire politique day passé bu nekkee politique bi politique day passé. politique lañ nekk politique bi jarul yenn affaire yi daal ñoo ngi ñaan yàlla daal yàlla son su ndox bu sedd guy ñu xam ne daal réew mi ñoo ko moom buñ ko yàqal suñu bopp lañ yàqal xam nga ñu ñëpp benn lañ nañ leen jéem ñaan yàlla daal yàlla sot si jàmm bu mag ñu nekk si jàmm ñu ñaan daal balaa balaa semaine bi di ñëw lépp lépp sedd guy quoi président bi addu si ba lépp tegwaat ci suuf affaire bi nekkaat si yoon képp ku nekkoon si occupation nga nekk parce que nit ñi liggéeyatuñu lépp arrêté na te loolu baaxul ay du yem ci bopp borom quoi ay bu commencé doo xam fan lay yem quoi dinga xam tàmbali mais doo xam fene finition bi quoi kon li ñu ñaan yàlla mooy jàmmal lépp yal na yàlla jàmmal lép sotti sa xol bi ci barke de mag ñu baax ñi fi nekkoon ci maam borom Touba Alaaji Malick tout ça ñoom ñëpp daal ñoo ngi ñaan ñaan daal ci seen barke daal Sénégal jàmm ñëwaat ci jàmm daal te tamit ñoo ngi leen remercier bu baax quoi initiative bi ngeen def nii quoi ok merci jaajëfal bu baax a baax parce que dama jégal rek jégal ma rek la jël yi quoi jégal salaamaaleykum sëñ bi naa def naka waat yaa ngi si jàpp waaw yow en tant que jeune nan nga nan nga gisee euh, ak acte bi nga xam ne le maire Amadou Diarra teg na ko en place. waaw ah, waaw lii moom lu baax la moom. waaw. ak gars yi rafetal rek. moo gën yàq bi quoi. saa yi moom gaa yi sonn nañ dañuy yàq rek waaw buñ ko sañoon daal ñun ñëpp ñu booloo doon benn quoi defar dëkk bi parce que dëkk buñ ko defaree ñun ñëpp lañ ko defaral quoi waaw. mobilisation bi am na doole lool euh, vraiment avec le maire Amadou Diarra euh, muy maire Pikine ko gis nga. jeunesse bi yëpp nag génn na mais nag euh, amaat dafa am lu ma jéem lu ma lu ma lu ma lu ma lu ma seetlu dafa mel ni gars yi marche wala gars yi grève wala gars yi manifester dëkkuñu biir Pikine comme ni ñu lu ñuy déplorer tout le temps ci yenn zone yi ñenn ñi dañuy ñëw jugee feneen foo xam ne doo xam fu ñu jógee ñu ñëw rax ci biir manifestation yi ma doon lu doy waar. waaw parce boo xoolee ñoom initiative bi nga xam ne def nañu ko. mën na dëggal loolu. mën na dëggal loolu parce que ñoom gis nañoo defar seen i t-shirt. dem ci policiers jàmm gën lépp lu jàmm moo gën lépp loo xam ne ñu ngi koy dund fii ci Sénégal. ba mu tax gis nga photo yi nga xam ne def nañu ko taxaw photo wu wane ñoo bokk Sénégal wane ne ñun ñoo war a defar Sénégal wane ne ñun ñoo war a defar lépp loo xamante ni lu ñaaw ñoo ko dindi. tey boo xoolee li nga xamante ni maire bi def na ko c'est à saluer. c'est à saluer parce que lii la ñuy ñi nga xamante ñoom ñooy njiit yi mooy gis nga bu tension tollee fenn fi nga xamante ni dégénéré wu na comme ni ñu ko nemmeekee woon trois jours yii. ñi xam ñoom ñooy kilifa yi ñu génn wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw ñi woo leen ci jàmm woo leen ci daal la paix rek. ñun ñoo génn ñun doomu Pikine xam ne ñun Pikine moo ñu ñor ñun leneen ñoruñu jàmm ak salaam la ñuy woote ci Pikine parce que Pikine bu ñu ko yàqee suñu Pikine la ñoo koy defaraat ñun ñoo fi dëkk fi yeewoo kon nañu nañu delloo suñu xel yi xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ke dëkk koñ bi am naa koñ bee xarit yow mi dëkk koñ bi am nga koñ bee xarit kon ñun ñëpp ay frère lañu nañ delloo si ak seen xel yi xam ne gars yi seen place yi ñoo ko liggéey ak seen ñàq gars yi bu ñuy yàq war nañ xool li ñuy yàq mais yàq bi dafa ëpp doole nag lii kenn xamatul lan la gars yi nañu àndaat suñu xel doonaat conscience gars yi mi dispiace nag pour trop hein c'est very affiant réew de la teranga tubaab lu ñuy nee boo ne Sénégal ñun le pays de la teranga mais kon gaay yi bu leen yàq teranga gi li fi am tam gars yi dafa ëpp ñun nag ñoo taxawaat di ñaan Sénégal yëpp la paix. la paix yëpp nag cat ba cat ñu ngi koy woote jàmm ak salaam ñun de loolu la ñuy woote jërëjëf sama gars yi. waaw da ngeen defal t-shirt yi dem ci waaw sans compter ak bu rafet la mhm. parce que tey lool bu ñu ko defee dañuy remercier suñu leaders yi ku ci mel ni Ablaye Timbo ku ci mel ni Thierno ba ku ci mel ni maire Issa euh, maire ministre Issakha Diop ku ci mel ni Amadou jara waaw ak ñeneen ñi nga xam ne ñëw ñu moo mbooloo maa ngi fi xam naa ne yegg seeguñ ñooñu ngi leen di sax leen gërëm parce que lii lañ doon xaar ñoon ay leaders lañ kon Pikine buy tàkkee ñoo nga xam ñoo nombal tànk yi normal ñu génn def lu mel nii kon gars yi ñoo leen di santaat suñu leader ñu ngi leen tamit masawu li ñu leen def seen kër yi wax dëgg yàlla métti na lool met waaw la paix daal jàmm ak salaam jaajëf sama gars yi bëgg naa leen kon Mass Mass mu amaat beneen jàngat boo xamante ne mën nañ ko ci def mooy dafa mel ne ñi nga xamante ne ñoom yi nga xam ñoom ñoo bokk ci mouvance bi ak maire yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci opposition ñoom ñoo associé def lii. waaw waaw ñoo associé ñoo booloo doon benn. très bien très bien doon loo xam ne ndeysaan acte bu garaaw la acte boo xam ne la vraiment c'est à lu doy waar loo xam ne amaat euh, rafetlu nañ ko daal. waaw kàddu yi vraiment yëkkati tamit ñi nga ça que sànq liñ doon wax. mas lii ça se voit que mooy sànq liñ doon wax. parce que c'est nous dans nous ak lu mënti am c'est le Sénégal. nous tous on est des Sénégalais yaa ngi dégg yaa ngi dégg lii nga xamante ne moom la ñu gis mooy ki nga xamante ne maire yi nga xam ñoom ñoo bokk ci mouvance nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci opposition ñoom ñoo associé wu woo moom leen ci jàmm woo leen ci ñoo war a defal nga xam moom mooy Pikine yi nga ne nemmeeku nañu ko du suñu cër du suñu mbir donc dañ ko teg ci suuf xam nga mu nekk xamante ni moom la ay ca kon léegi-léegi waxuñu ñu defante mais nañ jóg ñu wan leen ne li ñuy def neexul kenn jaayatul te ñoo ngi jëm tabaski bitig yëpp tëj na magasin yi tëj na léegi bu ñu jëmee tabaski xar yi ñëwuñu fu ñu jëm il faut que jeunesse Pikine jóg takkal loolu loolu mooy suñu message. sombre dara kaw presse warul toog yor sa plateau xam nga dëkk bi journaliste yi dañu mën a positif xam ne lii c'est la paix au Sénégal qui est en jeu de la politique. c'est banditisme. oui du terrorisme. il faut que les gens arrêtent. s'il faut donner ñoom rek ñoo ñu mën a joxe. nous sommes prêts à donner notre pour la paix au Sénégal. Ah na Pikine jóg. Pikine lañu wax. Pikine du nga def sama tëral ñu la. dëgg la def. dëgg la boo ñu saltee il faut ñu dakkal ko. monsieur le maire lan nga yëg sa xol instant yi boo gisee mbooloo bi yëpp tax soutenir la des na des na Pikine jeunesse bi yëpp ñoo war a génn pour may seen papa yi ak seen yaay yi jàmm jàmm ji mooy su ñëpp su ñëpp ragalee. su ñëpp ñoom dañuy def lu leen neex. dëgg la semer la ci dëkk bi. il faut que jeunesse Pikine wane ne. Pikine laa wax de Pikine. li ci nekk ci deret Pikine. jeunes yi génn bañ a ànd ak syndicat bi politique taxul mais pour jàmm am ci dëkk bi ñu bàyyi magasin yi ñuy saccagé. bàyyi yi ñuy saccagé. nekk ci jàmm. dëgg la lacrymogène yi ñuy sànni moo ngi dal maire borom magasin yi ñoo ngi préparé tabaski ñu tëj liggéeyuñ économie réew mi baaxul ci ñoom day dellu ci ñëpp mairie yi ñuy toj état civil ku ci soxla kayitu juddu ëllëg wala nga soxla ci mariage war décès da nga am ay problème loolu nag dañ ko war a jug balaa muy ya ëpp waa war a jóg mais acte bi nga def mu waroon yeneen dirigeant yu mel ni yow ñu waroon def acte bi ñoom ñu leen ñoom ñuy seetaan seen population ba léegi way eh, na ko ku nekk def ku nekk ñi la fal dama wax ak ñoom man ñi ma fal laa waxal pour jeunes yi comprendre génn jàppale seen gox suñ ñu ci reyee Sénégal bi ñu fàttaliku merci beaucoup. mais monsieur le maire gis nañ ni jaanu mooy rajo bi rajo nekk fee ca géej waaye li nga def nii démb def na ko. yow nga gën def ban message ngay lancé tamit ñi nga xam ne ñoo nekk si commune yi ñoom it. comme ni ko Mass waxee na ko ñëpp def bu ñu ko deful. Ah. ñu bàyyi ñun rek ñu def ko après ñu faat ñu. après le Sénégal retiendra que Amadou Diarra maire à un moment donné bëgg na dëkkam jóg na benn. merci beaucoup. voilà mu nekk geste bu rafet boo xamante ni gis ngeen ko dégg ngeen xale yi La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. yëngatuna nañu am fayda nañu am fayda nañu respecté sunu Sénégal te àdduna bokk naa la dëggal nañ la jox sa borom naa sunu société yëngatu naa sunu société yëngatu naa nañu am fayda nañu am fayda nañu respecté sunu Sénégal bokk naa la dëggal nañ la morom naa société yëngatu naa suñu société yëngatu naa gana ànd ak ñu suñu musal mais baay yeeg sunu yaay yi ñëpp am jàmm ñun jàmm la ñuy ay ndaw lañu amaguñ dara suñu réew mi bu nga yàqee suñ suñ bopp leen yàqal. mais sa dëkk bi. loolu loolu loolu du yoon. waruñu ko def danoo xamul jànguñu ay minaabal lañu man boo newul boo doo def lii booy def ñun ay kilifa lañu ay xale ndaw dañuy xool luy doxal Sénégal ñu nekk si waaw loolu kese waaw. Pardon, pardon, Mathieu.